kon lii nga def jàppal ne defal nga ko euh, njabootuk maam Alhaji Abdoulaye Niass képp nga ko defal comme ni nga ko waxee defoo ko rek ci turu Walfadjri waaye danga koy def ci turu njaboot gépp nga jaarale ko fa nga ko war a jaarale mooy dem tàggu leen ci yëgal leen ko ñu rafetlu ko ànd ci ak yow nga wëlbatiku door a ñëw ci sëriñ bi wax ko ko. war a jàllaat ci kër diine yi ci des itam tàmbalee ko ci sëriñ Abdoul Aziz Al Amine ni nga ko waxee léegi ak yenn ñi nga ko war a yëg ñëpp loolu itam di lu rafet loo xam ne ñëpp itam loolu la ñuy séntu ci yow ndax ni nga ma koy seer li may itam ni laa la koy seeree ndax bu fàttali ko lu toll ci ñaar fukki at ci ginnaaw quatre-vingt-dix-huit quatre vingt dix rajo bi di tàmbale boo fekkoon na. fu ñu du ko attaqué attaquement bu metti ci fu ci wet gu ne rek nag min kulli xa min kulli xa min rek mm-hmm. waaye bi nga nga dikkee nag rajo bi la ci jiitu rek mooy gëmluwaat nit ñi ñoo xam ne tasawuf kat lu fi yàgg la loo xam ne kenn wëri cee complexe ndax génnul lislaam lislaam ju sell rek la nga liggéey ci liggéey bu rafet boo xam ne boobu ba fi mu ne itam mosoo cee soppi aw doxin mosoo cee soppi aw waxin kon loola itam ni nga defee lii it warees na caa sant warees laa sant itam ci sa taxawaay ci réew mi ndax euh, man xam naa ci yow lu bëree bari ndax suñu borom dogal na dana ñuy waxtaan lu bëree bari te bu ñuy waxtaan itam danga may ubbi sa xol wax ma li nga xalaat ak li ne ci sa biir xol ci biir waxtaan yi itam waxtu ne dama koy wax xam naa sax du la bëggoon ma wax ko ci rajo. waaye saa su ma defee discours man naa di yaa may jëkkawoo rafetlu ko woo ñeneen nit rafetlu ko ba benn yoon benn yoon rek nga ma sa wax ne ma discours bi rek gis naa ci nangam ak nangam du ko wax nag du ko yóbbante du ko waxee ci rajo waaye nangam ak gis naa ko ci te sama xalaatu bopp waaye loolu itam noonu noonu la nit di ànd ak nitu koo xam ne ànd ba dëggu la ndax li arab